nag ku ci def lu jaaduwul ak koo mën a doon sénégalais yi dinañu la corriger comme ni ko ñëpp defee demb ak Cheikh Bara Ndiaye coow bi nga xam ne nag moo dox ci diggante Pape Alé Niang ak kii di Asma Khadija nekkoon ca Sen TV loolu itam dinañ ci def benn chronique am na benn xibaar boo xam ne mi ngi circuler comme quoi moom Asma moomulee ci réseaux sociaux yi la yëgee mbir mu ni mel Wur News def nañ ci benn article dinañu ci dikkaat gën koo yaatal waaye lu gàtt rek liñ ciy wax mooy bu dee information bi doon circuler nekkul dëgg Pape Alé Niang waroon naa génn ca teel la di koy démentir bañoon maya mbir mi di am benn ampleur bu ko jarul woon ndax nag dañoo gis ñoo xam ne jege woon nañu ko loola yëkkati ci ay kaddu yu mënoon a ñàkk bu doon Pape ñaare ñaar teel naa leeral comme ku ci mel ni Coro Maxu Mandela gis nañu ne ñoom ñaar ci mujjanteel gi ñoo doon defandoo émission doon décrypter l'actualité kon nag lu mënti xew a teel a génn daal di leeral dafay baax ci ay mbir bu ko defee askan wi bañ a tardé ci ay polémique ñu mën a ànd jublu gaaw ci liggéey lu ne mel dinañ ci dikkaat ci beneen jàngat jaa jëf AGT News